bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Equivox TV euh, tey nag dañu ñëwoon seet si koo xamante ni kenn dootu ko présenté l'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye euh, pensionnaire à Galatasaray Pape Alioune ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. voilà di leen remercier ci ci invitation bi. Euh, Pape Alioune dañu seetlu ni Galatasaray yaa ngi fa di gën a imposer wu mën nañu xam say objectif ak club boobu. waaw Galatasaray euh, équipe bu bu mag la donc euh, tey ñuy jouer les les grands rôles donc objectif bi du nekk lu dul euh, continuer di di jouer le le le haut du tableau pour ne pas dire le le titre sax laay wax parce que loolu loolu mooy objectif bi donc ñu ngi ñafe pour pour gagner championnat bi ñu ngi aussi en demi-finale de coupe. donc euh, objectif yi mooy euh, réussir le doublé c'est-à-dire gagner le championnat et gagner la coupe aussi. d'accord du nekk euh, si yéen su fekkee club Galatasaray nekkul à la tête du podium surtout en championnat du nekk si yenn genre déception. oui forcément dina nekk déception parce que tey ñun ñooy équipe bu gën a mag foofu donc chaque année les gens s'attendent à ce que ñu gagner ñu gagner titre. donc euh, mais rien encore joué ñi ngi ñi ngi ñi ngi sur les deux fronts et puis euh, voilà on va on va se battre jusqu'au bout et on espère qu'à la fin on va décrocher des titres inchallah mën nañ ni que Ligue des Champions amoon nga ko comme ligne de mire gisoo ni que échec la bon après tout dépend de nu ngi koy nu ngi koy jëlee rek je pense que tey voilà on n'a pas on n'a pas été ridicule ridicule non plus en, en Ligue des Champions je pense que def nañu def nañu ay match yu baax bon malheureusement si ay détails yu ndaw la ñu la ñu pêché et au, et au, au niveau ça se paye malheureusement mais voilà je pense que aucune équipe n'a été largement meilleure meilleure euh, ci suñu kaw mais malheureusement le haut niveau voilà c'est ça se joue sur des détails. Euh, quelle est ta situation là-bas par rapport à tes coéquipiers, par rapport au club oh, Super bien. Galatasaray, c'est un club que je connais bien. Ça se passe super bien. Je connais bien la maison. Les coéquipiers sont sympas. C'est comme une famille, quoi. C'est comme une famille. Donc ça se passe, ça se passe super bien. Euh, il y a deux Sénégalais là-bas toi et Mbaye Comment ça se passe entre vous euh, Am complicité est-ce que joué nga benn rôle si bi muy ñëw foofu ak intégration ndax jàppale nga ko ci. waaw Mbaye euh, sama sama coéquipier la foofu je pense qu'on a une très très très bonne relation ñooy nekk tout le temps ñooy nekk euh, tout le temps on partage plus que des entraînements e voilà je pense que tey pour euh, par rapport ak lu ko indi ay qualités moo ko fa andi ay qualités ñoo ko ñoo ko fa andi parce que il est en train de de faire une très très belle saison il a marqué beaucoup de buts après il a il a tapé ci ci ci euh, ci waa Galatasaray gars yi andi ko après c'est vrai que tey dinañ la laaj sa avis nga am loo si wax mais mais voilà talent moo ko fa andi après voilà il y a une très très belle complicité voilà on s'entend super bien Mbaye c'est quelqu'un de très très sympa. et voilà on partage plus que des entraînements. d'accord euh, seetlu nañ ko toogoon nga benn moment boo xamante ni ñëwoo équipe nationale du Sénégal euh, da nga jot a waxtaan ak coach avant ngay ñëwaat wala. non je pense que tey sama ñëwaat euh, voilà ça c'est ça s'est fait de manière très naturelle man dama mës a focus si si conti ci di def samay performance je pense que je suis régulier dans moo club bien vrai que je pense que tey du loolu kese mooy tax nga nga nga nekk en équipe nationale mais voilà maa ngi régulier sama club yàlla suturaal na ma la saison ça se bien pour le pour le moment alhamdulilah waaw loolu moo waral tey ma ma ñëwaat euh, ma ñëwaat équipe nationale après coach bi dialogue bi musul musul musul dee au fait de temps en temps dañuy waxtaan comme je pense ni muy waxtaanee ak joueur yëpp mais voilà tout se passe tout équipe nationale la en ce moment on peut dire qu'elle est plus ou moins stable est-ce que mën nañ jàpp ni que Pape Alioune Ndiaye dafa ñëw pour déstabiliser hiérarchie bi nekk déjà en place. non ban hiérarchie non moi je suis au contraire déstabiliser non c'est c'est trop dire tey ñun on doit plus être dans la complémentarité mooy tey kii. Ehm, di apporté peut-être lu kële amul kële yow am nga tey loo amul sa morom am na ko c'est comme ça qu'on bâtit une équipe euh, en fait ñun ñëpp tey dañuy tiire dans le même sens ku nekk ñëw bon avec tes qualités avec tes imperfections et puis c'est comme ça qu'on qu'on constitue une équipe. yéen a ngi waaj a dem Égypte lan mooy seen objectif. je pense que objectif bi ñëpp ñëpp xam nañ ko. voilà un court après depuis depuis belle lurette euh, Sénégal mosul gagné de trophée voilà continental et on espère que voilà cette année sera la nôtre et puis euh, on va on va revenir avec euh, avec le trophée inchallah euh, à chaque fois dañuy faral di dégg Sénégal candidat sérieux la à yow lan nga xalaat ci loolu. waaw su ko ñëpp waxee c'est parce que dëgg la c'est vrai que Sénégal mosul gagné Coupe d'Afrique mais le Sénégal est très très respecté fii en Afrique et ci monde bi yëpp le Sénégal a de très très grands joueurs le Sénégal a une très très belle équipe mais j'espère juste que dinañ ko matérialiser une fois en Égypte incha allah d'accord ñu gis euh, ay jeunes joueurs yu ñëw rejoindre leen comme Crépin Diatta yow ban appréciation nga am ci loolu. oui euh, je pense que coach bi répondre na ci question boobu que l'équipe nationale elle reste ouverte équipe nationale kenn moomu ko affaire u ñëpp la lépp ñëpp la donc euh, je pense que chaque fois bu yaakaaree ne un tel joueur bu ñëwee mën na apporter mën na nekk plus-value pour équipe bi mën na. am lu mu apporter l'équipe bi je pense que du hésiter pour dem jëli la Crépin que ça soit Crépin que ça soit euh, Kobali gars yëpp c'est de très très bons joueurs avec de avec un Crépin c'est quelqu'un de très très talentueux cobali pareil dans les buts c'est am na avenir bu ngand donc ñooñu ñëpp c'est bien que ñu intégrer tanière bi et j'espère que tout leur talent dinañ ko mettre au service du collectif. Euh, comment ça se passe entre vous? super bien à chaque fois que ñu gisee on est on est content de se dañuy namante donc moo tax suñu gisee à chaque fois ambiance bi dafay neex dañuy waxtaan dañuy kaf dañuy reetaan l' ambiance elle est super bonne. Euh, am na benn moment boo xamante ni Pape Alioune Ndiaye kenn gisatu ko woon ñëwatul woon à sélection loolu noo ko dundee qu'est-ce que ça bon xam nga moom brosse naa ko sànq xëy na dama si gën a gën a xuus rek man dama resté rek concentre ci samay performance en plus j'avais j'avais beaucoup de matchs yoo xam ne dama ko waroon jouer dama doon jouer championnat dama doon jouer coupe Turquie dama doon jouer ligue des champions donc on n'a pas le temps de se de se disperser au fait tu restes concentré sur ton sujet parce que chaque trois jours yaa ngi war a jouer di préparer sa ay match man je me concentrais sur mes performances de faire au mieux en attendant mon retour en équipe nationale. Euh, Pape Alioune Ndiaye amul benn problème ak coach bi ba mu tax woowatuñ ko sélection. Non, non, non, non, jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais eu et il n'en aura jamais. Non, avec le coach, non, jamais. Je sais pas pourquoi parfois ça nous met la question pour vous. Mais non, non, non, il a jamais eu de problème. Euh, soo seetloo génération 2002 amoon na benn complicité boo xamante ni amoon na seen biir au point que match bu ñu mënti jouer ak métti bu mu mënti métti dinañ am benn leader boo xamante ni ñëpp nangu woon nañ ko seen biir euh, moo doon ñëw dugg régler situation bi loolu noonu est-ce que gis nga ko yéen seen biir. ah oui ñun on en a plein on en a plein <laughs> équipe bi ku nekk ku nekk leader nga en ku nekk tey leader nga. et puis tey moom laa doon wax sànq mooy complémentarité bu moo waroon wax su kii di flancher mentalement keneen ku ko gën a fort peut-être sur le moment te mu xëcc ko pousser ko encourager ko donc tey loolu la loolu mooy équipe en fait et tey on en a plein même boo xoolee tey ku ci nekk fii sa club gars yi ay leader lañ fii après il ne suffit pas tam forcément rek euh, d'avoir le brassard pour pour wane ne leader nga et puis je pense que tey loolu la ñun ñëpp tey ku ci nekk mën a apporter dara euh, sa équipe nationale mooy ku nekk tey avant tout nga ne man leader la tey suma copain su nekkee en difficulté c'est à moi de le booster c'est à moi de la réveiller c'est à moi de l'aider ba mu ba mu ba mu duggaat ci match bi c'est vrai que génération 2002 amoon nañ loolu mais ñun tam am nañ ko. Euh, génération 2002 amoon na ay leader yi yoo xamante ni que xamoon nañ ko ñii la saa bu situation bi coolee dinañ dugg gérer ko yow seen biir est-ce que mën nga ñu wax euh, kan nga gis ko mooy seen leader. génération 2002 ñan ñoo doon leader yi. non fii maa ngi posé question yow yaay tontu. <laughs> non mais boo demee xam nga boo ma ku nekk leader nga. coach bi su woowee vingt trois joueurs xamal ne woon na vingt trois leaders. mais mbëkka mbëkkante après c'est c'est trop dire mais voilà pour xam nga tey euh, football tam dafay avancer tey caméra yi ak loolu noonu yëpp tey ay am na loo xam ne munatul mënatul am te tey le football tam voilà du du du loolu quoi tey dafa am ñu bëri ñu ñuy seetaan ay xale yu ñuy seetaan am na tey ay valeurs yu ñu war a prôner am na surtout ay valeurs yu ñu war véhiculé mbëkkante moom yaakaar naa ne si si ring la war a yem mais tey suñu mayo ak suñu emblème jaral nañu lu nekk tey lu mu laaj dañ koy dañ koy joxe mais ça reste quand même du football après pour euh, pour se battre on n'hésitera pas pour suñu dëkk lu mu laaj rek incha allah dinañu dañ koy dañ koy def. <laughs> mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee tey dañu demoon seeti Pape Alioune Ndiaye waxtaan ak moom ci clubam bi nga xamante ni fa lay yëngu waxtaan ak moom ci sélection vu que ñu ngi dem si kan bi euh, Pape Alioune dañu lay bàyyi nga tàggoo wax ak ñi lay seetaan. waaw maa ngi leen di remercier kontaan naa trop tey si invitation bi di leen ñaanal li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla defal leen ko et puis di tàllal suñu ay loxo sénégalais yëpp ñu ñaanal ñu incha allah pour yàlla defal ñu jàmm d'abord ñun ñëpp et puis que ñu demee Égypte yàlla yàlla defal ñu fa jàmm ñu ñëwaat ndam incha allah. ñun tamit on vous souhaite bonne chance pour la suite. merci merci